mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ziar waaye di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko jiital ci nga xam ne Serigne Mountakha Bachir xalif général kullu murid yal ko fi yàlla yàgg lool ci bànd wér noonu lañ koy defee di nuyu ak ziar Serigne Cheikh Jëmm Fall xalif général kullu Baye Fall di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool ci bànd wér di fekk noonu ci mbooleem kilifa diine yi te yaan xaadir la seen bàyyi wuñ kenn tey benn émission bu am am solo ki nga xamne mom la invité nak mo nekk sama wet bala maa def leen ma bàyyi ko mu présenté ak mbokk yi jullit yi ak mbokk taalibe yi auzu billahi min sarri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñu de Serigne Fallou Diakhaté lan lay wax doon doomi Serigne Cheikh Diakhaté fii si Daaru Xudoos ñu bëree bëri xam ko bu baax nag yaakaar naa bu baax baax comme ni nga ko waxee ñu bëri xam ko bu baax ci diwaanu Touba muy jógee fii ba Daarul Xuddoos sëñ bi mu bëggoon a xam yow lan mooy sa sa sa liggéey. waaw ñun nag li liggéey dëgg-dëgg mooy jàng jàng arxuraan ak di jàngale arxuraan ak di yëngu ci wàllu ñaan. Mhm. waaw di ak di jàngale arxuraan ak yëngu ci wàllum ñaan. jàng arxuraan di jàngale arxuraan di yëngu ci wàllum ñaan ñan gu demee na. moom ci yàlla. ginnaaw ba nu yàlla dimbalee ñu jàng alxuraanul karim ba mokkal ko bind kaamil jaar fi ni jaarale doomi soxna yëpp ban fa jaaree ba pare si leen gën nag dem gëstu ci xam-xamu lasaraar ginnaaw bi ñu gëstoo xam-xamu lasaraar ba pare nag boole ko ak li suñ suñu waajur bàyyi woon suñu Cheikh ñu boole ko ak li ñu yor nekk ca di ca góorgóorlu damay wax ne nag lasaraar ak ñaan daa daanaka waxtu wu nekk danaa koy faral di leeral njabar jëmmi njabar si boppam moom maanaam mooy li nga xam ne nii képp koo xam ne da koy def rek mooy ku tënkuwul si sariya képp kuy njabar rek foo ko fekk rek xamal ne tënkuwul si sariya ndax ki tënkuwul si sariya faaw danay làpp danay julli danay woor maanaam mbooleem ponk yi nga xam ne mooy ponk lislaam da ciy nekk ki nga xam ne day yëngu ci maanaam wàllu njabar wàllu sulmaani yi kooku mënta tënku si sariya ndax la muy def méngoowut ak loolu moo tax kooku mënta yëngu ci loolu ñun nag dañuy ñaan ci yàlla ki jang ka jangale mom koku yakana jamono bu nek da nga meuna fekk da tunku ci sunna mhm. ki nga xamne day yare di terbiya mu mom jamono bu mi terbiya di yare mhm. war na koy fekk mo mu nek ci li nga xamne ni rasulullah mhm. sallallahu alaihi wasallam santane njabar ñi wax ci njabar li nga xamne seigne muntaha bu yagul da doona ay li nga xamne modi njabar li ngay def ak njabar euh, lan lan moy sen différence ñom ñaar waaw moy lima la wax rek xam nga ñaan ak njabar bokkun njabar moy ki nga xamne ni day wax ne bu neexee yàlla ak bu naqaree yàlla te loola sax du lu am mënta nekk lu neexul yàlla moom mënta am waaye nag ki nga xam ne day njabar moom mu ne la bu neexee yàlla wala bu naqaree yàlla kooku maanaam du tënku si sunna moo def par la force maanaam maanaam fala force mhm. moom du tënku si sunna mhm. moom mën nay too ndox te du du du laabo mhm. mën nay wut lu ne beneen ay sangara wala xeet yu araam yoo xam ne da ay jël di ko boole ay yëfam di ko def te loola tënkuwu si sare xam mm. loolu ki nga xam ne mooy def loolu kooku mooy ki nga xam ne day njabar mm. boole kooku nag bu neexee yàlla ak bu naqaree yàlla mm. la a gis ah, mm-hmm. ah, na yori moom na mm-hmm. waaw waaye kii ñaan na moom day ñaan ci yàlla rek mm-hmm. xam ne ginnaaw yàlla moo ne di leen ma ñaan ma leen di may eh, ginnaaw bi nga jàngee ba xam gëstu xam-xamu baatin mhm. ndax bala ngaa mën a ñaan yàlla it faaw da ngay xam xam baatin mhm. xam xam doo ko mën a ñaan yàlla mhm. ndax ki ngay ñaan bala nga ko mën ñaan faaw nga xam ko xam-xamu baatin yow xam nañ xam-xamu baatin bu baax a baax a baax sax mën nga wax loo xam ne eh, eh, eh, loo xam ko nga wax ma nam nam demee bu soobee suñu borom mën naa nekk insha allah rabbi mbokk yi yéen a ko dégg na bi nga yor yaw da koo donn wala da nga koo jàng wala waaw donn ko jàng nañ ko maam yëmuñ ci donn gi rek dañ koy jàng ci bërëb yu bëree bëree bëri ba suñu borom si na si tawféex ñu génn ci yenn réew yu bëree bëri jàng ko ba suñu borom defal ñu si ñu topp ci ay kilifa yu mag a mag a mag ba suñu borom defal ñu si boole ko nag li ñu jëlee ci suñu waajur suñu saa jaxate boole loolu lépp nag toog nekk ci di jàng ak a jàngale ak di faj aajo nit ñi te di ko jaarale ci ñaan suñu borom subhanahu ci ni mu ko bëggee ah. Ah, jërëjëf ma yaakaar ne euh, kon kon kon kon yow war war ngaa mën mën ngaa faj lu ne kon kon man su ma amoon koo xam ne day daanu rab ak di daanu jëli yooyu noonu su ma dikkoon yow yow mën nga koo faj bu soobee suñu borom subhanahu ah. moom kay euh, xëy na xëy na dañoo nekk si studio bi waaye boo hmm. fekkoon ne xam nga koo xam ne day daanu rab indil la ko wala nga am mbokk moo xam ne da koy def wala nga xam ko rek si hmm. kon bi nekk hmm. boo ko indee fii léegi bu soobee suñu boobu ñu faj ko léegi. bu hmm. si yàlla andee. ah kon yow sama xarit boobu di daan rab dinaa indi ci moom. mu mu faj la. incha allah incha allah rabbi yaa ko wax de. bu ñëwee léegi ñu defal ko ñu ko defal léegi bu soobee suñu boobu hmm. sant hmm. amul tay ak suba ak ginnaaw suba dañ defal léegi. mu wér léegi bismillahi taala karim. léegi yow da ngay faj rab ak jinne yooyu yëpp képp koo xam ne loolu da lay dal ak yooyu yëpp da nga faj. képp koo xam ne nii dafa saytaane da koo jàpp wala rap hmm. wala mu amé sadd jinné jek jek rek yaram wi jek jek sadd ma mu jek jek yaram wi néwé jinné def koko hmm. lu mu ci mëna doon bu ñëwé fi dañ koy saafara bu soobé ko xam day togo ci rek képp ko xam day daanu ay rap hmm. di yu yuxo ka say bu ñëwé bu soobé sama dañ koy def bu ko ko défé ci carton su mborom mu bayyi ko mu sen mam deñ ci mom waaw lu doon mëne calmer lu ñu def légui mu wër légui lay doon ci yalla ndé ñoko dégg no ma sha Allah legi ko xamné mam dañ ko dañ ko liggéey wala wala ñu def ko no xamné manam yalla mën nay baña yek nim ko nexé gëy non ku ñu liggéey dal waaw ki nga xam ne koo liggéey. kooku bu ñëwee ban xool yaram yi. ndax nit mën naa dem ba jàpp ne dañ ko liggéey te liggéeyan ko. Hmm. waaye su ñëwee ban xool ko ba mu leer na liggéey moo nekk ci moom. Hmm. bu soobee suñu borom subhanahu wa taala sa sensé hmm. maanaam la nekkoon ci moom dana yëg ne deñ hmm. moo xam da ko liggéey yàqal ko avenir hmm. moo xam dañ ko liggéey mu nekkoon ci place mu jóge a jigéen bu mën doon ci doomu aadama rek bu ñu ko ko liggéeyee rek bu ñëwee ban xool ko a yooyu rek mooy nit ñi di liggéey ngir faxas la daal la. waaw loolu moo tax ma wax dama ne la. Hmm. liggéey nit. xam nga hmm. nit ki man lu mu doomu aadama lu mu nekk rek te amu ca kaaraange liggéey man na koo yàqal wala cet yàqal ko ko wala rab yàqal ko ko mm-hmm. waaye lu mu ci mën a doon rek mm-hmm. bu ñëwee ci ñu rek loolu danañ ko saafara waaye bala ñu koo bala ñu koo faj daal mm-hmm. ba xam rab la wala liggéey la wala njabar la waaw lu mu ci xam ne moom la rek ñu faj loolu bu mu ci bu koy faj bu mu si doon bu ne buñ ko xoolee ba xam ne loola la loolu maam bu soobee suñu boom mu tàggoog moom bari waa na ñoo xam ne ñu ngi xëy suba di wuti dara mënuñu léegi léegi yow yow yow bu nit ñëwee ne moom dafa umu mënut a def dara dara ba mu baax ah. ba mu wut dara ba mu am ko loolu est-ce que ma nga ci def ay ñaan. waaw bu soobee yàlla. ki nga xam ne ni dafa kumute. maanaam umute mooy koo xam ne da doon am ba si yàgg amatut. Hmm. wala koo xam ne day faral di am mu yàqu kumute mooy koo xam ne lu la dig rek ñaar da day yàqu. Hmm. doo mën a am dara. Hmm. loo duggi day yàqu. maanaam mën ngaa jàng ba am sa diplôme wala nga mën sa métier lool waaye pour nga gis ñu jëla du yomb. Mhm. pour nga mën a avenir am am am am yokkute ma avancement du yomb sa yow. Mhm. loolu mooy kumute. Mhm. doo mën a am dara wala loo amee day yàqu. kooku bu ñëwee ci ñun bu ñu ko sangatee bu soobee sunu borom subhanahu wa taala loolu dana koo xam ne kumute na rek. ba yëg ak kumute ci moom ak tëju tëju rek. maam bu ñëwee loolu ñu faj ko. bu soobee sunu borom léegi léegi nit nit soxla dana bëgg ko waaye bu ci ba ci biir lépp lépp ci sa lay doon. loolu kumute lay nit dana dem ba nga xam ne nii. lim ko war a laaj lépp da ñëw ñu laaj li la war a laaj lépp nga matal li nga war a matal lépp lu ndaw téye la. lu ndaw loolu téye de kumte lay doon mën ngaa dem ba lépp mat te du tax ñu jël la mm-hmm. yéen dem ba lépp mat te du tee ñu ñu ñu ñu ñu tee la euh, ñoo ko déggandoo léegi euh, muy mag muy ndaw xam nga feebar moom feebar la rek day dal nit mm-hmm. li nga xam ne moo di sawlal bari na sax ay ñoo xam ne ay mbagum jëmale mu leen dal loolu yaakaar naa nga ci mën am ay ñaan waaw képp koo xam ne day toor ndox moo xam muy mm-hmm. góor moo xam muy jigéen moo xam muy mag moo xam muy ndaw képp koo xam ne mi ngi toor mi ngi toor ndox ci guddi hmm. bu paasee at hmm. gone gu xas ba am at wala ñaari at rek hmm. di tuur ndox rek guddi rek xamal na loolu rab moo ko def kooku bu ñu yee suñu yenn saafara ko des na am lañ koy liggéeyal ñett yoo xam ne benn téere lay doon benn bi lu muy naan lay doon benn bi lu muy sangoo lay doon mhm. bu soobee suñu borom ko ko waxee bu ko jëfandikoo noonu mhm. insha allah mhm. moo xam muy mag moo xamee ndax bu saa yu saa yu gént di tuur ndox rek gént lu koy dikk saa yu tuuree tuuti rek day yëg ne moom mi ngi tuur ndox day daal di gaaw jug daal di eggale ji waaye du ko eggale mukk mukk fa mu tëdd su tàmbalee génn rek mu yëg ne mi ngi génn nga xam ne kii saw lal jamono bi muy tëdd gént lu koy dikk moom xam moom jamono bi muy saw day jàpp ne moom ma nga ca wan a wax oh. jamono bi mu jàppee ne ma nga ca wan a wax nag mhm. bu tuuti tàmbali ñëw rek day yëg ni maam ko am na lu ñëw mu daal di jóg ba defee kersa la koy dugal bëri na mag ñoo xam ne moo leen tee am jabar bëri na jigéen ñoo xam ne moo leen tee am jëkkër ndax magum jëm muy saw moom du sutura euh, du sutura mhm. ah. macha allah ñoo ko déggandoo ba tey euh, bëri waa na ñoo xam ne euh, tey mën na ñoo wax ne chômage bi dafa bëri nit ñi amuñ liggéey am na ci ñoo xam ne it am nañu seen li nga xam ne moom la ñu wut ci wàllum diplôme jàng nañu pare mais bëgg nañoo génn mais tey xam nga ne génn moom yombeewul noonu léegi-léegi nga nga bëgg a génn ay visa lu ne lu ne mën na laati ah. ko bëgg a tukki yow lan nga mañ ci moom. waaw damay wax ne de képp koo xam ne bëgg ngaa tukki. te nga jaar ci yoonu ku bëgg a tukki ni muy jaare mhm. ginnaaw boo amee jaaree maanaam. maam ginnaaw boo amee kayitu juddu. Mhm. wut sa carte d'identité wut sa passeport ba pare. Mhm. maanaam boo ñëwee ci ñun passeport ba am na lu ñu cay liggéey bu ñu bu ci dem rek dese bu ci dem rek dese mën nga ko lijjanti maam boo lijjantee yëpp ba xam nga bëgg a tukki bëgg na tukki te taxul nga jaar ci yoonu tukki amoo carte d'identité amoo passeport bëgg na maa tukki xooxa ko la signaler du tax nga mu sotti waaye bu yëpp dajee ci yow tamponné visa rek bu desee boo ñëwee bu la la koy may bu dee ku nekk ci biir réew des na ko ñaanal mu am ko bu dee ku nekk bitim réew di liggéey te amaguti kayit bu jokkoo ak ñoom bu soobee suñu borom dana ami kayit bu soobee suñu borom kon na am naa ba mu tukkee ba léegi mënu fexe ba ñëw ndax ko mu am kayit fa kayit a jafee hmm. buñ jokkoo ak moom ñu ñaanal ko mu ami kayit bi isnillahi taala karim waaye kon kon naka mbokk yi xaar kon léegi kooku dana ñu bisee ndax kayit kayit kayit sëñ bi lu mu jafe-jafe muy fii si Sénégal muy fii si bitim ko mu am xam naa ko xam tamit génn rek la bëgg génn rek kooku bu ko defee bu ñu ko ko defalee hmm. moyen yëpp dajee ci moom hmm. ñu ñaanal ko mu dem hmm. kon gars yi wala boo leen bëgg gisatul rek ah. <laughs> du ma ñaanal mukk nag koo xam ne lépp moyen yi dajewu ci moom maam amul passeport amul lenn passeport daal saa yoo ko amee te bëgg a tukki Hmm. bu soobee suñu borom bu ñëwee ci ñun da nga tukki incha allah rabbi léegi xam nga xam nga ni léegi nit ñi hmm. ngay gis nit bu rafet jigéen rafet hmm. nga bëgg ko soxna baa nga mu nekk ci nga koy ngoroog yooyu noonu waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne moom rafetaay ga mi rafet wala yow romb am la romb bokk leen kalaas ba tax na moom boo ko nobee sax du la nopp baa nga baa nga nopp ko mu bañ ci leneen hmm. léegi koo xam ne da nga ko bëgg mu bañ hmm. léegi euh, est-ce que wala wala ñaar ñoo xam ne ñu ngi sëy hmm. ci seeni sëy ñuy xuloo ko ñu meroo est-ce que ñoom danañ mën a àndaat ci à travers yow ci ñaan ñooy ñaan waaw ah. ki nga xam ne nii dafa bëgg a noob jigéen xam ne maam sa gàttal jigéen nopp ko daal maam mu nap ki nga xam ne yow tey da ngeen doon ànd ba si yàgg mu jékki-jékki wan la ginnaaw mm. te xamoo lu waral mu wan la ginnaaw mm. wala ki nga xam ne sa jabar la ngeen nekk ba si yàgg ngeen jékki-jékki maanaam am ay jafe-jafe mm. kooku bu boo ñëwee ci ñun des na ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala dimbaliwaat leen seen digg jëkkër ak jabar lu nu wanante wanante ginnaaw bu ñëwee ci ñun lan ko defal bu ko ko defalee bu soobee suñu borom danañ toppante waat ñoom ki nga xamante ne dafa bëgg nit nga xam bëgg ko ci may bëgg ko ci caaxaan bu ñëwee ñu defal ko loo xam ne bu ko tëkku ndaw si kenn du ko takk waaw dafa ko loo xam ne bu jëlu ndaw si kenn du ko jël bu dee góor ñu defal ko loo bu dee jigéen ji moom ak góor gi hmm. danañ defal góor gi loo xam ne bu jëlu ndaw si ndaw si du sëy ah. dana defal ndaw si bu dee moo ko bëgg ci góor gi danañ ko defal loo xam ne góor bu ko tëkku du du am jabar du takkaat bee yàlla xam na <laughs> ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ko dégg noonu léegi xam ne moom eh, nekku ci sëy nag moom nekku ci sëy maanaam ko xam ne sëy waaw ah. waaye bëgg na ndaw si ngir ngir ngir caaxaane ko ah ngir ngi nekk ak moom rek non non maanaam loolu nag moom duñ ko liggéey <laughs> ah. ki nga xam ne daal moom wax dëgg yàlla bëggul ndaw si lu dut maanaam bëggu ko ngir caaxaan wala la hmm. hmm. daal mooy ki nga da nga ko bëgg ngir jabar hmm. la ginnaaw wala jëkkër ji wan jabaram ginnaaw wala jabar ji wan jëkkëram ginnaaw loolu daal wax dëgg yàlla fu nga ko fekk loolu moom des na sa def suñ kam kàttan ba sabe suñ borom subhanahu wa taala ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko déggandoo sëñ dama koy dégg rek ci ci mag ñeeg yooyu noonu. waaw mbamba wuute moom mbir la moo xam ne lu am am solo la. Hmm. ndax mag ñu bëri daanañ ko faral di ko def maanaam muy wuute muy loo xam ne boo ko takkee eh, lu jëm ci ay accident ay ay ay ay ay douane ak ay police ak ay gendarmerie ak yu bëree bëri yoo xam ne suñu borom subhanahu wa mën na la see musal ndax dañuy wax ne ndomba wuute loo xam ne même boo ko yoroon sax te yor lu ñuy sare yàlla mën naa dimi jamono bi nga jamono bi nga xam ne maa war ngaa mën a taseeg li la li la war a gaar muy muy police wala gendarmerie wala douane jamono boo waree egg si ñoom rek dana fa jóge ñoom wala ñu am lu nekk seen xel ba nga romb leen te duñ la lijjanti loolu mooy wuute ndomba la goo xam ne nii kenn du ko am mukk mukk di ko takk maanaam di fekkee benn jafe-jafe wala benn balaa wala benn musiba di fa waaj même mbir bu naroon a am tey loola day am sa ginnaaw ñu nettali la ko waaye doo ko fekk nga wuute ko daal nga wuute ko ndomba googu nag ndomba ko doy war la mhm. moom moom moom lañ ci liggéey mhm. ñu ngi koy liggéey ci sori awsa yi mhm. bu ko defé dana am juróom-ñaari téré lay doon yo xam buñ ko liggéey dal wax la ni nga koy koku boko jëfëndiko ko kenn du ko aw nak dañ koy dañ lay wax ni nga koy jëfëndiko rek mhm. waye ginnaaw buñ la wax ni nga koy jëfëndiko dal boko ko bu soobee sun borom mom li di wuté lu man di doon ah manam dang dang ko wuté bu soobee suñu mhm. ah, macha allah ñu leen di fatali ne a nak Serigne fallu jaxati borom kiimaan place sax boko fa také place mhm. boko fa také bu doon lak tay bu doon am marché la nga takko sa biir place bu marché bi bépp doon lak mu nekk sa place ba place ba du ah yalla xamnako yewi la waaw ñoo ko déggandoo. sëñ Fallou euh, Jaxate borom kiimaan moo moo moo moo wax loolu léegi ku bëgg am place. xam nga nit mën naa mën naa bëgg place yor ay marchandises war ko dugg ci place euh, moo koy dugal ci ci nga xam ne moo moo di di marchand ambulant léegi yow ku bëgg am place est ci yow dana mën a am ki nga xam ne daa bëgg place de. Uh-huh. nga xam ne maam daa bëgg ñu jël ko ci place bu muy liggéey. wala mu uh-huh. yore ay bagages bëgg place bu muy liggéey. comme uh-huh. ci mën doon bu ñëwee mën ko xoolee ba xam ne ko téye. ba wax ko lañ ko cay wax buñ ko si ñaanalee la mën naa jàppandal place moo xam ko nekk ci place la te bëgg ko faa jële te bëgg faa jóge moo xam koo xam ne day liggéey te bëgg am place boo xam ne nii bu ko amee pour place bu mën a liggéey danga gis koy mooy ma la wax si njëlbeen nit dana jàng ba amee diplôme am fu ne mu dem déposé fa te du tax ñu jël ko kooku bu ñëwee buñ ko defalee lan ko defal bu soobee suñu borom danañ ko defal contrat léegi léegi bu soobee suñu bu Mm-hmm. day day daa mën métier ba pare te bëgg koo jëlit mm-hmm. bu ñëwee dana des na ko defal bu bu dee ko mën métier ba pare na nekk ci bëri bi ba pare ñu mm-hmm. bu ñëwee a nga ni euh, nit dana nekk nekk ci la muy jàng soxla ci mu ba élève yi ne moo nekk ci école bi di jàng ba sax étudiant ba nekk ci université di jàng xel mu neex ko ko bëgg ci ñëw ci yow. waaw xel mu neex moom maa ngi ci kiis goo xam ne moom wax yàlla néewaa na maanaam borom xam-xam yi néewaa ñu ko gis lu na néewaa na ñu ko gis baa ñu ko xam baa ñu ko xam ñu ko déggandu waaw borom xam yi la saraar laa wax mm-hmm. néewaa na ko ko gis wala ko ko xam mm-hmm. waaye lu waaye naqar naqaram xel bu ko jëfandikoo bu soobee suñu borom mm-hmm. maanaam lu mu gisati dana ko xam te lu mu déggati du ko fàtte waaw kiis googu ñoo ko jëleen daraame escale gu mag c'est ça sama xamina naqari léeg léeg nga lay ma dara ba dama laa tontu yàlla waaw kooku de baal nga ci dimbali mu sama yàlla insha kon gars yi bu amee chance ma xam ne ne sëñ bi la yenn genre yi feebar ngay ngay ngay faj yow waaw feebar moom danañ ci faj yu bëri lu demee ne siburu dañ koy faj siburu maanaam paralysie maanaam siburu yaram wu jekki-jekki di metti rek te du xam borom xamul lu ko waral kooku bu nga ko xoolee ba xam naan dañ koy faj bu dee wàllu bopp muy metti ci doomu aadama dañ koy faj métti bopp lu tar tar tar bu borom ñëwee buñ ko moccee benn mu sedd waaw bu fekkee ne wàllu yaram daal doomu aadama néewaana lu nekk ci yaramu doomu adama di metti te duñ ko faj waaw li nga xam ne daal moom laa gëm ni mënu ma koo faj hmm. mooy damm-damm hmm. waaw maam boole yaxee daal laa mënut émoride doo ngi faj waaw bu baax émoride bu baax toppam sit bu baax ah. waaw bu bu bu nëbëg bu feeñ yëpp dama koy faj bu nëbëg bu feeñ beeg yëpp dama koy faj émoride ay saaboo koy yëpp dama koy defar kay ñoo ko dégg doo ah. émoride <laughs> ñu évolué ñëpp nag ñoo ko ñoo ñoo ko déggandoo euh, sëñ bi euh, xam nga ni euh, léegi léegi léegi yaakaar naa ñu ngi waxee na ma nañ ma jégg sax ci kàddu gi ni ngóor yàlla léegi jafe na mm-hmm. ah, ndax yaakaar naa léegi bion jonge yeeg jimbo yeeg maj yeeg yooyu yëpp daanaka ñu mi mi ngi am yu mu yàq daal mm-hmm. léegi yokk ngóor a waaw moom wax dëgg yàlla maanaam réew mii mm-hmm. di Sénégal wax dëgg yàlla bu yàlla dëgg bu fekkee yàlla dëgg rek la bëgg maanaam gisuma sëriñ buy ñaan te maam te te doxuma ko ngóora. Mhm. doxuma ngóora yow. doxuma koo defar. maam garab buy maye kàttanu góor ku nekk senegal Sénégal di ñaan te yow kenn nekk ci Sénégal tey ñaan laa wax. Mhm. moo xam muy bind moo xam muy sunguf moo xam muy reer. yow yaa fi yaa fi dàq fa maa ko fi dàq fii ci Sénégal laa wax. wax maa ko wax. bala koo xam nag nga indil ma koo xam ne mënul dara. Mhm. waxuma waxuma koo xam ne nii maam daa kii de. ku mënul dara laa wax ma faj ko léegi te du bu mu fay dara. bu mu fay dara bu fay dara. kon danañ essayé kon. waaw <laughs> dañu am ko indi moo moo moo mu ah. xam nga xam nga ngóor a tamit nekku ne loo loo loo xam ne da nga da koy ñàkk man ci jigéen ak yooyu noonu. ndax ngóor moom bu ñëwee. Hmm. dañ koy xool ba xam ngóor la. Hmm. wala du ngóor a. Hmm. xool ko ba xam stress la wala du stress. nit ki nga xam nit dana dem ba ba jàpp na mu daa néew kattan sax te fekk ne néewul kattan. loolu da nga xool ba xam lan la ci moom ba pare. xam nga xam nga ngóora tamit gaaw a yegg sa bopp ak yooyu yëpp ci ngóora la. waaw loolu lépp la te yooyu lépp da koy faj. a yegg bopp xam nga yooyu yëpp da nga koy faj. xam ne day gaaw maam lu ko romb mu kii kay ñoo ñoo ko <laughs> <laughs> ba tey gaaw a éjaculé ak yooyu noonu ki gaaw a ki gaaw a. Eh, yegg yegg noonu. waaw loolu man da koy yàq. yëpp da nga koy nga koy faj waaw. sëñ bi sëñ xam nga gaaw a yegg mhm. eh, maanaam ñu bëri dañ koy wax te xëy na xamuñ ko dëgg-dëgg lan mooy gaaw a yegg mhm. ndax xam nga gaaw a yegg mhm. bu fekkee ne ni nit ku xam ne dafa gëj ci jabaram. Mhm. gëj ci jabaram. Mhm. faw yoonam wu njëkk ci rapport faw day gaaw a egg. Mhm. yoonam wu njëkk faw day gaaw a egg bu dee ko gëj ci jabar. bu dee koo xam ne nag dafa nekk dafa dëkk ak jabaram. maam ñaare. kattan tool yi sax dañ ko wax ne gën ngaa gàtt mënut a passé ay cinq minutes. quatre minutes cinq minutes six minutes. waaye yoonu ñaareel bi nag mën naa yàgg mën naa àgg des minutes. yoonu ñaareel bi mën na ko mën na ko ëpp sax. mën na ko ëpp loolu lépp day jar day tax nga xam kàttan bi xam nga nit fan fan fan yan yan yan yan maam yan minute la war a mën a sëy ba nga xam ne bu foofu daal sëy normal carrément normal moom xam nga sëy moom dafa am loo xam ne dëgg-dëgg sëy gi maam góor gi fi mu daanoo ak ah, yàlla mu yàlla kii wax ji sax ndeysaan waaye nit ki góor gi dëgg-dëgg fi muy eggee si diggante ma jabaram lu ci ëpp mi ngi aju ci jigéen ci mën nga ànd ak sa jabar deux minutes sax mën nga mën nga mën nga cee te du tee ngay borom kàttan mën nga ànd ak jigéen lu yàgg te du tax nga nga egg ça dépend ci jigéen gi ak yëg-yëg bi nga ci am bi ngay ànd ak moom rek noonu loolu lépp nag daa mat a xam nit du cere da ngay jékki-jékki yëg ne yow da ngay gaaw a egg rek jàpp ne da nga néew nga kàttan wala néew nga kàttan ki néew kàttan a egg si jabaram sax waaw ki néew loolu moo néew kàttan waaw waaye loolu laa la xamal ne la fii si fii di Sénégal fii kenn dox ma ko fee faj. Hmm, yaa ko wax de. waaw hmm, loolu moom yaakaar naa gars dégg nañu ko baax fii ci Sénégal nee na moom kenn tax koo faj ne moo di wàllum néew kàttan ak yooyu noonu. Hmm. yaakaar naa dégg nañu ko baax a baax képp koo xam ne it loolu daf daf laa dal yàlla dogal mu dal la sàkku naa ci yow nga dem seeti sëñ Fallou Jaxate euh, mi di borom kiimaan am naa yaakaar ci moom loolu incha allah rabbi euh, képp koo xam ne nag moom euh, wërsëgam dafa dafa dafa daanu wërsëgam daanu. waaw ki nga xam ne wërsëgam dafa daanu. ndax da ngay gis nit koo xam ne day am day am alal lool wala mu am wërsëg lool day jékki-jékki rek lépp mu yàqu. nga xam ne day dem ba jëmmi xottu place ba mu yoroon naa dem ba jaay ko. këru boppam sax mën naa dem ba jaay ko. day jeexal ci àddunaam. kooku bu ñëwee ci ñun. am na saggat yoo xam ne defalee bu soobee suñu borom. lépp loo xam ne yoroon na ko ba mu ko rek loolu lépp dana dellusiwaat si moom. képp koo xam ne nii dafa amul wërsëg wërsëgam jeex maanaam wërsëgu doomu aadama sax du jeex waaye bu demee ba nga xam ne dafa yàpp moom jàpp na wërsëgam jeex na xam nit ñew na ci man ne man dama yaakaar ne sama wërsëg daa jeex hmm. man ne ko wërsëg doomu aadama du jeex fu hmm. sa wërsëg jeexee bu ne rek xam ne mooy faatu faatu ah ma ne ko da nga tëju rek tëju tëju googa buñ la ko defalee sangat yan ko war a defal buñ la ko defalee bu hmm. soobee sun moom da nga amat wërsëg comme na nga meloon wala na ko raw ah ndax tëju tëju nit nit ki bu amee wërsëg di liggéey Ah, xëy ah, na ñang koy nono diko yakal diko ciatu rab man nako yakal. Yo man nako yakal yoy yep nak uh, bu dajé ci mom rek wala ben nek ci mom man nako yakal ba bam tambal war sero ha, mhm. ah, te do xam lu ko waral yoy yep nak bu nit ki ñewé fi ci ñun mhm. lolu bu soobee sun borom sama da danañ ko ko safaral bu soobee sun borom insha allah rabbi ñoo ko do képp ko xamné it euh gis nga uh, sa sax dafa gawal gaaw daw uh, wala place bu daanu nga jekk-jekk gis na place bi mi ngi wàññeeku mhm. balaa egg ca daanu rek gaaw a ñëw. lu si mën di am rek dawal gaaw ci Serigne Fallou Diakhaté borom ci baan leen léeg léeg léeg gis nit koo xam ne dafay yaramam dafay néew yi. wala mu am ay taab. loolu moom sëñ maanaam loolu boo gisee comme dal. Hmm. si jamono bii may waxee yow laa boo gisee comme bu ñëwee. Hmm. mën nañ ko faj du fay hmm. képp koo xam ne ngaa gis saw yaram neewi ba sadd. te xamoo lu ko waral boo ñëwee buñ ko moccee buñ la sangatee sa sensé mu rees. moo xam yaram woo xam ne ndax da nga gis nit ko wax day jékki-jékki yaram wi neewi nga jàpp ne kuy lekk suuf la wala ku dara dal la wala yu mel na fekk na yaram wi mooy neewi rek mm. maam saytaane mën na ko def léeg-léeg sax naan xorob la xorob waaw yooyu yëpp mën day am ci nit mm-hmm. waaw léegi loolu bu ñëwee moom dana tàgga moom mm-hmm. moo xam yaram wi neewi moo xam bopp bi neewi da nga gis ko xam ne day jékki-jékki fenn ci loxoom wala ci tànkam neewi nga jàpp ne taab la fekk na du taab neewa la mhm. neewa boobu am na mocc boo xam bu nga ko ko moccee mhm. jox ko la mi sangoo mu sangoo ko bu soobee suñu borom loolu dana tàggoog moom sa sensé bu soobee suñu borom bu dee wàllu taab it a doon gi tax may wax taab nag laa waxuma taab taabaan yi de waaw taab taabaan yi nag léegi taab taabaan yi moom bu ñëwee gone yaa koy mocc mhm. waaw yi ndaw yaa koy mocc <laughs> waaye taab yi taxu wax laa wax yooyu la wax bu ñëwee laa wax sa sensé bu bën dana mën sa sensé mhm. mu soobee suñu borom waaw ci Sëriñ Fallu borom kiimaan ah. doo leen gaaw seeta ko ma nga ca diwaañu Touba euh, Guédé yi numéro yaa ngi noonu di affiché ci li nga xam ne moo di écran bi euh, jërëjëf jëf ba tey ne moo di Serigne Fallou Jaxate borom kiimaan euh, ñu ñëw ci li nga xam ne moo di feebar boo xam ne bu bu bu bu bu yéeme la hmm. muy borom bopp léeg-léeg nga toog ni mu naan xuux xuux xuux xuux xuux boo boo tëddeeg moom sax da ngay mujj yëpp déplacé waaw borom bopp de maanaam li nga xam ne moom laa ciy faj. Mhm. maanaam maa ngi ko jëlee Gambie ci génn góor gu am xam-xam foofu. Mhm. loolu ñu ngi koy wax ñoom ñoom xarnde lañ koy wax xarnde. moo xam ne dafa amee boroom bopp moo xam bopp bi di metti mhm. moo xam muy xuuxuxi ba si koo xam ne ay bëtam day xonq. kooku bu ñëwee ah, ab téere bu dee jigéen la téere bopp la koy def bu dee góor dañ ko ko jox mu wax ni mu koy jëfandikoo. yenn saa yi dara dara la. kooku bu ñëwee bu dee jigéen la téere bopp lañ ko koy defal. Mm-hmm. bu dee góor danañ ko wax ko mm-hmm. jëfandikoo. Mm-hmm. bu soobee suñu borom loolu dana tàggu moom bu soobee yàlla. loolu moom def léegi gis la moom. waaw kooku moom boo ñëwee ba kër ga te fekkoo ma fa sax ndongo ba gën a ndaw ca ndongo yi mën na ko bindal moom loolu jàngal na leen ko ñoom ñëpp ñu fàttali la nag daara yor ci diwaanu diwaanu Guinée di daara ju mag di jàngal ay xale yoo xam ne ay tout tànk lañ mën a jàngal li hmm. nga xam moo di alquranul karim donc nag ne mooy yëngu ci alquran yaakaar naa wuti nag xam ne moom la Serigne Muntaxal ba si yàlla fi yar yàgg loolu te yàlla ak wér di tere mooy li nga xam ne moo di njabar ñu koy moytu bu baax a baax képp ko xam ne léegi dafay jongante te nga xam ne léegi daanaka sax émi euh, examen bag yi daanaka jàll na waaye BFEM mu ñëwagul ak yeneen jongante yoo xam ne dañu koy euh, jàngonteel ci li nga xam ne moo di réew mi léegi képp ko xam ne day jongante ñëw ci aw ndax dina mën a dina dina mën a jong wàllu jongante moom yàlla defal na ma ci tawféex hmm. maanaam ba ma ca dalee ñaan ba tey hmm. maanaam ñëpp de du ma leen dajal waaye bu ma ci bu ma ci am koo xam ne yàlla nangul ñaan nga rek hmm. ñaar lay doon wala benn ren rek lu mat fanweeri pers nit yi nga xam ne ñoo leen ci man mhm. ñaar rek la ci yàlla nattoo ne amuñ ci bag bi si bag bi fanweeri nit vingt-sept yëpp am nan waaw premier tour laa wax ah, vingt-sept yëpp yàlla am nan waaw mhm. ñi si ñaar ñi nga xam ne daal amuñ mhm. kenn ki njëreem la dëkk kenn ki mi ngi dëkk Daara Jolof trente personnes waaw vingt yëpp am nan yàlla xam na ko Ah. waaw loolee nag wala ah? ñaar ñoo ca ñaar rek ñoo ca mut. 28 ñoo am 28 koo <laughs> xam ne. Mm-hmm. ñaar ñi nga xam amuñ ci it wax dëgg yàlla bi ma leen woowee wax leen ko ak ñoom bi ma woowee wax ma. Mm-hmm. bi ma leen leeralee ndeysaan ñoom it am nañ ci gëm yàlla goo xam ne ni. Mm-hmm. xam na ne yàlla yàlla rek ay maye. waaw te yàlla ñi mënta maase may ñëpp it ndax ñëpp waruñoo am bak wala ñëpp maase amit ñëpp mënuñ ko maase mën a amoon amoonoo tey ndax xëy na ña amoon njëkkoon nañoo am fuñ jaaroon te amuñu woon ren la yàlla dogal seenu am dëgg la leleg nit ñëw ne la setal ma ba xam samay mbir fan la toll ci walum set gogu ndax da ngay set yow. waaw set mom momit lima la waxon rek set mom wax deug yàlla. manam yakarna ñima ko dakk fi bu di amna bari wut yaa borom kii man voilà. waxuma waxuma fi Sénégal. ci aduna la wax. billahi wal kitab kuma ko fi dakk man amut. waaw nangu kenn mom ko fi dakk mom du ay wax rek maam du toog ne damaa toog si émission bi ni di incarner woon dama lay wax li nekk. Mm-hmm. ah fan seet yépp dama si seet ba ci nit ki nga xam ne nii daa bëgg xam saraxam bëgg xam rawanam bëgg xam wan tur yàlla moo jàpp aw turam ak ban aaya arfa moo jàpp ak saraxam ak ñaanam yépp dama koy dama naa la ko génne si seet ah, fan yépp yépp dama ci seet diggante waay dencante góor ak jigéen ba xam baax seet sax dama see bindu téere hmm. bind naa si téere spécial boo xam ne def naa ko fii émission ah am na am na solo def naa ko fi émission ah. seet moom maanaam fànn gu mu mën doon. Mhm. boo ma woowee rek mën naa laa wax li nekk ci yow. Mhm. Ah. ci ci bépp woon ne la sëñ sëñ man Baye Samb Seck ma waaye bu leen maa tamit tuuti may wax. Mm, ma wax la li nekk ci yàlla. ci téléphone bi ci téléphone. ah ñoo ko déggandoo. ñu yàlla dimbali ñu yor naan rawaan yoo xam ne nii. bu ñu mhm. bëggee xam li nekk ci nit ki dëgg-dëgg bu ñu neexee sax duñ ko xool. nag ñuy wax léegi ñu wax la li nekk ci yow léegi. loolu yàlla dimbali nañu ko macha allah sëñ Fall. boo ko déggee noonu ba tey ah, léegi li nga xam ne moo di moo moo di bayre nit ñi bëgg ko lool. waaw foo toll ñu ñu ñu yaa cool yaa yaa ko yor. bayre moom daanaka nit ñi xam nañ ko waxal ci bayre. bayre moom maa ngi ceeg ay yëf. ay am naa ak ndomb am naa ci ay sangat. Hmm. yoo xam ne bëri na fii ci réew mi ay kilifa yu mag yu fi nekk. te ay artistes yu way fii. Hmm. yoo xam ne ñëw nañ fii defal naa leen ko. Hmm. li ma ci yor moom boo ko defee. faaw nga sax nit ñi. foo ma kon señ bi ki ma gën soxlaan ci bayer nak moy ki gëna soof ci nit ñi ba nit ñi japp ne mom da soof man mi la <laughs> man maa gëna soof ci nit ñi bu bu yow <laughs> xam nga euh, nit ki dama yu bëgg li ma lay defal nga xam résultat bi dëgg-dëgg moy mhm. ki nga xam ni dafa mom japp ne mom da soof mom mhm. nit ñi señ man ma gëna soof xam nga señ bi ñak bayer dana bokku na ci li nga xam boy wuti liggéey sa do mën am ah. boy dugg ci dara sax muy am ay yaq yaq ay jëf jëf mhm. loolu lepp ñak bayer la rek da ngay mën sa métier ba par señ bi soof nit ñi kooku señ bi bu ñëwee hmm. kooku sëñ bi dana tàggoog ñàkk bayre gars yi kon seet leen sëñ ah. Fallou Diakhaté ah. borom borom borom kiimaan ah, ci wàllum bayre bayre moom nit ñi dañ koo bëgg loolu macha allah eh, sëñ Fallou eh, say kaddu yu mujj ci ci ci ci ci émission bi léegi yaakaar naa yaa ñu ngi may signalé ne ne li des ci temps yi bareetul waaw yu mujj yi daal li ma la ci bëgg a xam mooy mhm. yii nga xam ne moom laa lim fii mhm. ak yeneen yi nga xam ne lim ma ko mhm. ndax émission bi temps la rek dañ am lu ñu fi rek képp koo xam ne daal bëgg ngaa xam ñun fi ñu mane ak lin man da nga ñëw ba suñu kër sama daara fekk ma fa boo ñëwee bu soobee yàlla da nga xam lin man ak lin mënut di sant yàlla di sant yàlla waaw di sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom bàyyi ko fi baax di sant Serigne Cheikh Jaxate bu baax suñu jur moom mi nga xam ne nag moo nu boole ak sëriñ Touba waaw ñu ngi koy sant baax Hmm. di ñaanal sun borom defal ñepp jamm hmm. képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu saa di ñaan rek hmm. yàlla na yàlla may ndam ci waxtu wu nekk ak jamono bu nekk inshallah fo daara ji vision la suñu no valeur yaakaar naa tey dund ngeen bu baax a baax li nga xam ne moo di jotaay bi masha allah barakallah ñu àndoon ak Serigne Fallou jaxate borom kiimaan yaakaar naa ku ne xam ko tey ndax ci ci à travers wax yi mu wax ni euh, sam nañ ñëpp gërëm ñëpp euh, tous les téléspectateurs et téléspectatrices bu daara ji vision la suñu no valeur yi nga xam ne ñu jàpp way bu yàgg bu ne te bàyyeeguñ benn yoon waaye les meilleurs restes à venir inshallah rabbi loolu maa leen ko wax li gën a neex mi ngi ci kanam te bu soob yàlla danañ dan dan danañ ci àgg sant naa ñëpp gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn waaye di sant bu baax a baax ki nga xam ne moo di euh, Serigne euh, Bamba Sall di sama couturier boobu nga xam ne moo jaar fii ci sañse bu rafet bi macha allah sant naa ko gërëm naa ko moom mii di Bamba Sall numéro am di 77 094 01 55 094 01 65 77 jërëjëf Bamba Sall fi fi rafet fii macha allah gis nañ ko bu baax a baax yaakaar naa euh, ci lu taaru lii jër a ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu